mbokk yi African Commission on Human and People's Rights mooy commission bi seetu àq ak yelleefu doomu adama yi fële ca tund Afrika ñoom nag amoon nañ seen i ndaje seen i ndaje bi nag moo nekk juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti ñu koy am eh, ñu def ko nag ci anam bi gën a taaru ba tey nag ca ñu koy tëj ci altine bi ñu ne foofu nag am na dignitaires yi bari maanaam kilifa yi bari nga xam ne nag teewu nañ fa ñeneen yi nag dañuy seetu àq ak yelleefu doomu adama yi mu am ñoo xam ne nag dañoo bàyyeekoo ci réew yi wute fële ca lii di waaye nag wane ne bés bi tamit ab taarix la parce que wane nañ foofu seeni i euh, jom pour fee ba gis te daal dina gën a dëgëral seen taxawaay ci wàllu àq ak yelleefu doomu adama yi euh, ci àdduna si rawatina ci li nga xam ne nag moom li di Afrique ñoo ngi ci Seydou Camara. African Commission on Human and People's Rights kuréel la boo xamante ne ni ñoo yore lu aju ci wàllu sàmm ak ak yelleefu doomu aadama ci tundu Afrique. mbootaay bi it ñoom ñoo yore lu aju ci wàllu faram luwaay yi nga xamante ne rek moom moo tënku. ci wàllub àq ak yelleefu doomu aadama ñu gën koo xamee ci African Charter on Human and People's Right waaye tamit ñoo dee bàyyi xel àq ak yelleefu doomu aadama yiñ dee yàq su ko defee ñu jël si ay matukaay def ci ay gestu pour fexe ba gis ne dinañ ci am lu leer naka noonu it dañ dee faral di oote ay programme yoo xamante ne ni liñ jublu ci programme yi nag mooy pour dooleel àq ak yelleefu doomu aadama ñu ubbi tamit ay buntu pour mun a am jokkalante yu leer ci wàllub li nga xamante ne moom moo nekk human right mu di ak ak yeleefu doomu aadama ci bépp réew bu munti doon fii ci Afrika honorable commissioner Lita Musimi Ogana mi nga xamante ne ni moom bokk na ci ay kilifa yi nga xamante ne ni ñu ngi teewoon ci ndaje bu nu mel gaarale na kàddu yi nga xamante ne ni moom lañ tuppee ci final communique of the session juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti ordinary session bu African Commission on Human and People's Right bi nag jeex na ci anam bu am doole gannaaw bi nga xamante ne délégués si ñu ngi bàyyeekoo ci béréb yu bari fii ci biir li di tundu Afrika ñëw nag pour seet gàllankoor yi nga xamante ne moom lañ am ci xeex bu ñuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama ak tamit yokkute yi nga xamante ne ni moom lañ jot a am ci xeex bi ak li nekk ci seen kanam. honorable Hussein yi solliciteur général ci legal secretary nekk ci ministry of justice bi moo joxee kàddu yi nga xamante ne ñoo bàyyeekoo eh, ci ki nga xamante ne mooy minister of justice ci biir réew mi gaare ne nag ay kàddoom di xamle ne ndaje bu nu mel nag ndaje bu am solo la fii ci biir réew mi te yeneen i ndaje yu mel nii ñu ngi ci suñu kanam di ñëw gannaaw bu ñu tëjee ndaje bi nag. oote nañ ab press conference jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi foofu nag indi nañ fa ay yaatal indi fa ay leeral ci li nga xamante ne jot nañ koy waxtaanee ci ndaje bu am solo bii ñu amale fii ci biir réew mi jafe-jafe yi ñu am ci wàllu xeex bu ñuy xeex ak ak yeleefu doomu aadama jafe-jafe yi ñu am ci wàllu xeexal bi ñuy xeexal yelleef àq ak yelleefu doomu aadama naka noonu tamit yokkute yi nga xamante ne moom lañ jot a amagum ci xeex bu ñuy xeex pour ñu respect àq ak yelleefu doomu aadama. ci ki tontu yi nag seen digganteeg taskatu xibaar yi vice chairperson bu commission bi di honorable Janet Ramatoulaye Sala Ndiaye am na ay lecce yi nga xamante ne nii tontu na ko ci mbir yi nga xamante ne nii waxtaanee nañ ko ci commission bi nga xamante ne rek moom lañ am fii ci biir réew mi. bokk na nag eh, ci li nga xamante ne moom lañ jublu woon ci ndaje bi ñu amale fii ci biir réew mi mooy pour nas ay pexe seet nan la ñuy aaree nit ñi seen àq ak seen yelleef fii ci biir di Afrika seet tamit eh, yokkute yi ñu am ci xeex mi ak jafe-jafe yi nga xamante ne rek moom lañ amagum ci yoon wi ak li nga xamante ne moo nekk ci seeni kanam pour ñu am li ñu mbébét ci wàllu àq ak yeleefu doomu aadama fii ci tundu Afrika seydu Camara Star TV News Camara